bi nga jógee ci caporal. sa combat taxaw sa diggante ak junior bu Grand Yoff mbooloo. junior nekk un gars boo xam ne il est pétri de talent mën a bëri nekk booy bu lëcc booyu Grand Yoff bi. tegale cinq combats cinq victoires mësul daan. sixième combat am ñu boole ko ak Wëz Jàmbaar Wëz Jàmbaar daan ko jël bu rëy. mu fanaanoo mer comme ni gars yi naan gaynde mer la fanaanoo. Uh-huh. muy waajalaat retour bi pour ñëw prouver que ne combat bee défaite bi ñu jëlee ci Weur Diambar erreur la. Mhm. ñu ne la junior a ngi nii nga jël ko. Mhm. waaw moment boobu mooy li la war a say ma am na li nga xamante ne dañ koo liggéey te moment boobu nekk woon ñuy toog saison di ci bëri benn combat. jaaduwul woon. jaaduwul moment boobu daa am lu ñu doon prouver. Mhm. te sunu borom defal nañu ko. luñ ciy prouver am na ñu ñu ci xam. comme ni nga ko waxee junior. junior dafa nekkoon combat bi a xamante ne. noonu la waroon mën a deme parce que man am naa si bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk koñ boobu day ñëw bu fi guddi ne ma kaaw ngir yàlla lépp loo mën a yokk rek yokk ko. parce que junior dafa lëj dafa mën a bëre dafa junior ñoom xalaatuñ dara mooy man na nga daanu rek ba man ma mën a am gàcce ma ne ko ci kàttanu yàlla bu yàlla lu mu doon maye bu ko jëlu junior maam moom du taxaw. booy junior junior. non Seyna xam nga lu tax ma wax la lool. booy junior lëj na. Seyna junior lëj na de. man ku seetaan làmb jooju. làmb jooju ku ko seetaan. xam ne lu ci am yëpp maa def. booy da da nga déggoo li ma la wax da nga bëree ba bëree ci kaw air bi <laughs> man jour boobu tuddee naa la ninja tuddee naa la Shaolin tuddee naa la façon tur bu ne. Uh-huh. da nga bëree ba bëree ci kaw air bi. Mm-hmm. da nga bëree ba bëri loo xam ne xel daju ko wala boobu man sama xel daju ko parce que combat bi dafa des ci sama mémoire après tey su ma doon noté ces dix dernières années diis combats yi gën a neex ci ci làmb ji combat boobu dama ko ciy dugal ndax xeetu bëri yi ngeen bëri li nga teg junior teggi li mu teg nga teggi ba finalement nga daan ko bi nga daanee junior jour boobu amateur yi dañu kontaan ba yéen ñaar ñëpp yéen ñaar ñëpp dañu acc ci kaw voilà dañu acc sunu per Malick Thiandoum moo ñu moo ñu woo ak ñu ba ci kaw. lamb jooju noonu moo nekkoon meilleur meilleur combat ci année bi. cette saison saison te te pourtant billaahi wallaahi nu ñu nu ñu defaree mbëri mag yi pourtant mënoon nañu ko defaree mag ñoom. ak moo jaadu. mais defuñu ko. maa ngi ciy dox nag man loolu. Mm-hmm. xam nga dèjà euh, kaw. Mm-hmm. gis nga ni doo nekk ci dara gis dara naan lii jaaduwul. gis nga boo gisee lu jaaduwul. Mm-hmm. yow da nga ciy dox ay jéego. jéego dëgg la. Euh, man xaw ma mbër yu mag yi mbër yu mag yi d' accord son di du mérite bëri nañ ba toll fi ñu toll mais du question que ne chaque année combat de l' année ci mbër yu mag yi lañ koy jëlee déedéet wala bu ñu jëlee ci mbër yu mag yi nañ jël catégorie mbër yu ndaw yi aussi xool combat bi fa dàq ci ci année bi ñu jël honoré boy yi de loolu leen liñ mérité mooy yoon sax voilà parce que boo xoolee loolu noonu dina tax mooy mbër yu mbari mbër yu ndaw yi da leen di yokku quoi da leen di yokku motivation voilà xam nga làmb gën a yokku jom sunu papa Tafa moo tëggoon lamb bu mu njëkk tëgg mbabat bu mu njëkk a tëgg teg ay saal <laughs> lamb jooju laay doog a feeñ tele ma fekk fa champion yoo xam ne ñëpp maa leen daan jël lamb ji mu teg lal ay ay la wala xaw ma non ay saal la tewoon ay weñ luur bi kii moo ko jëloon malal ok billaay wallaay boobu maa ngi nekk bu ndaw boobu laay doog feeñ tele après ñu jëm mooy mooy esthétique ñaari mbër yooyu. Ah. ba léegi mooy sama gaal. ok mooy sama gaal. xam naa trophée bi trophée bi xam naa sama per per tafaage sax fàtte na. non warula fàtte nag. warula malal fii la ma teg boobu maa lu ndaw ma fekk fa champion yaa nga xamante ne. leer na ma ni billaay wallaahi jamono yi ñoom ñoom ëpp doole. nga xuus mais du foofu quoi gëm-gëm la. ak lu yàlla dem gëm mën mën. mën yàlla def na ko non non Seydina ñun dañ dañ dañ tarbi ci bëre dañ ci def la nga xamante ne gëw ma sunuy sunuy sunuy sunuy rakk sax def ko parce que am nañ ay mag mhm. mais tam am nañ ay rakk dañuy nangu loolu comme nañ ko tuddee ay ñoom Oli mhm. ñoom Valdo numéro de ay ñoom Caatu Kayre Kaw Cissé numéro 2 Caatu Kayre euh, euh, ñoo tey tey ñoon sunuy rakk lañ Caatu Dalifor ñu ñoo leen war a woon yoon bi pour fu ñu jaar parce que ñun sunuy mag dañ woon yoon bi mhm. bien vrai que tey jii bu ñu nee nii Dalifort dañu naan ñun man maay seen mag te amaana du ma seen mag ay morom lañ mais comme ci làmb ji la man maa leen njëkk a bëri dañuy nangu loolu noonu te tamit du tax ñu dañ leen di teg ci yoon ku ma gis ki xamante ne deful lu yoon dama lay teg ci yoon ñu ñëw ci combat maag junior bi mhm. junior man leer na ni bu bëre woon bu mhm. bëre woon arbitre sifflé muñ taxaw ne day bëri mhm. dama koy daal lu tax combat bi yàgg parce que dañ ko ni boo bëree booy bi daal te billaay wallaahi noonu la demee. ngeen bëri meilleur combat la. non lambu jooju daf ma neex. nga daan ko jël bu parce que dañoo tolloo. Mhm. te une semaine combat ma ko daane. Mhm. dama ko liggéey ak ñi ne mooy samay samay booy lañ samay rax ñu gën a tudd ci équipe bi ñooñu mhm. lu ma ko daane loolu dong laa doon liggéey parce que xam naa ni tôt ou tard dina dugg ci samay falan. dina jël wet bu baax. te bu <laughs> ñun ñun mooy loolu. <laughs> nga jóge ci Junior. dëgg la. ñu taxawal sa combat yàgg euh, Samba Ndele boobu sax da ngaa xaw a gestu parce que junior moo gënoon a aju suuf nga daan junior mhm. gestu mel ni kuy may sens nga may uh-huh. sens Samba Ndele waaw mais laa aussi combat boobu dafa mel ni sabotage la parce que mayoo booy bi sax mu léwatoo sax mayoo ko ko mayoo ko mu au moins nga mayoon ko sax ngeen bëri tuuti mhm. ngeen bëri tuuti après xam nga xam nga da ngaa wax léegi sa biir wax nga ne ma waru moon gestu comme damaa gestu moo tax làmb jo waru <laughs> dama combat bi dafa taxaw ma dem Grand Yoff ma dem Grand Yoff <laughs> euh, xaw ma sa foto laay roon xaw ma ma ne nii Nandi mhm. Nandi Fall moo gis sa photo ne ma kii ak mën a bëri moo booy bii ak mën a bëri euh. ma ne ko am na combat ni moom moo kan ma ne ko sàmmandela bu pour lay bëri li ma wax rek mooy booy bi mhm. ak mën a bëri parce que boobu gaa yi bàyyi na la bu baax comme ni ko waxee ñoo ngi koy nuyu mhm. mooy. Nandi Nandi Fall c'est un cool gars suñu combat ma ndeysaan mais xam nga. moom fu mu toll ak fu ma toll xam nga rek. niveau yi dina am niveau yi quoi mais. saa ne nee de moom ah. nekkul woon sax sama yoon. mais mais mayoo ko jour combat bi dafa sifflé nga mel ni ku plongé. waruma ko may dara. billaay wallaay waruma ko woon may dara waruma ko woon may dara. parce que man xam naa li nekk ci man nekkul ci moom. te moment boobu macha allah mu ngi toog ci ay victoire. mu ngi toog ay victoire. saison saison boo xam ne 3 combats la bëri victoire signé man xam naa ni parce que man heure bu ma jugee làmb. semaine prochaine damay dem Mbapat. waaw man du ma fi toog. waaw làmb bu ma bëree samedi. semaine prochaine ma dem bëri ji Mbapat. te du ma bëree Mbapat Dakar ci àll laa lol duma tok ni sax diko wax eh, damay beure ji mbapat nit daf may wol dama kaw ba xam da ngay mbapat ñaata man leen man duma beure man ma Dakar la mhm. man Dakar rek la met mhm. mhm. man xamna sama bop te xamna ni ginuñu maa ñëmé all bi billahi wallahi ginuñu maa ñëmé all bi te ginuñu maa xam all bi mais nak beure nga daan sàmm ya rek mais aussi y a des choses yo yow doko wax mais man may jël sama initiative wax ko gaay xamé ko non uh-huh. boy après duguna di waaw am na li am na li nga xamante ne mënul ñàkk moo cat dugulut am na li nga xam ne mënul ñàkk mais na ñàkk peut-être yow non peut-être yow yow yow yaa négligé ngeen ma la loolu dañoo toll ci ci dynamique bi nga xamante ne lépp dañ koo tegle victoire ñëpp bàyyi la xel ñëpp ñëpp moo tax ma la loolu benn defet nga am ci làmb mooy sa diggante ak yow technique boobu dañ leer na wala leer n'est-ce pas boobu man du ma du ma jàpp ne sama defet la quoi léegi nag keneen ku ko jàpp ba ci zone technique mm. moom bu jàppee defet la moom la moom moo ko mais man samay victoire dama ko jëlee maa la parce que victoire victoire la. waaw man moom li li seen man man man loolu laa yëkkati. kooku moom ku mu neex mën nga gisee la. mais dama ne après cat dugg na waaw cat bi déggoo la ma mënul ñàkk am na li nga bu ñëwee. est-ce que boo duyoon ngemb li ba mu fees cat dina dugg. am na li nga xam ne suñu borom bu ko tuddee nga duy ngemb duyaat ngemb. ma boole ak suñu borom yow sa théorie nga sa communication nga yor ma may ma tuuti. Ah. bëri bi mi ngi fi. Mhm. entraînement bi mi ngi fi. mais dem nga ba instant boobu gala jël nga ko téye ko ne parce que jàpp jàpp nga ne affaire bi bëri la ak entraînement. waaw booy nag nañu waxante dëgg bu mu ñëwee ci defet yi ah. bu ma juumul Euh, Sidi Diamou yoon moomu njëkk daal te làmb jooju dama ñëw war a bëri spécial waa CNG jaxase affaire ma bëri ma bëri premier combat. carte gi jaxasoo carte gi jaxasoo ci ku war a bëri. spécial laa la. Sidi Diamou wax nañ ci combat bi. maag Gourné ma ne ko booy tey nga dee. dégg bi ngi nii du du ma bàyyi ma fen. sama waay la borom baax la wax dëgg yàlla kon kon booy la jantal bi jantal booy la. pour benn mbër bu ma mës a bëri di déggante moom. moom dong laa ci dégganteel noonu la parce que borom baax la noonu la mel ak yow noonu la mel ak gin wër gin wër ci boppam doomu Amadou Kati Diop ba ñu bëree Sidi Diamaguène daan ko après dañu nekkaat ay gën di déggante non moom Baye bi mm-hmm. moo xam yàlla ko suñu borom defal première défaite bu leer boo xam ne daan nañ la ko mooy sa diggante ak Sidi Diamaguène boobu moom dafa leer mu leer la ne daanu nga yow gis nga Sidi Diamaguène ah. Sidi Diamaguène bar bi sifflé dama ko ërtal dóor ko mu génn làmb ji billaay wallaay dama ko dóor mu génn làmb ji te moment boobu man xaw ma Sidi Diama ngeen te Sidi Diama ngeen xam na ma non man xam naa ko bu baax man fekkee naa premier combat bi muy bëreeg Raoul au stade municipal bu ah. Parcelles fekkee naa lépp ah. mais aussi man Sidi Diama Sidi Diama ngeen daanu na sama kanam ma gis ah. mais jour boobu yaag moom mhm. nga daanu fi nga daanoo fi ma mhm. taxaw falaa laa taxaw mhm. mu yéem la torop yow parce que mëno mëso gëm ni sidi jamm gën dina ma da te yow xam nga ni sidi jamm jàmm gën daanaan la xam yàkk maa ko xam boo gën mais moment bob man xam xam sidi jamm gën parce que am lu tax ma la loolu dama daan xel ko di lamb joj xel ko moko ko andi ñoo boo ko nek nekk te man xawma ci dara mu leer ma ni man ñi dañ ma xam te man xawma leen après ci la xam ni kat léegi lamb ji dafa laaj dafa laaj dal mhm. am lu mu laaj mhm. Mhm. après ci la jógee ñu jox ma këll gi non mais Je lo xamné waxna ko mais nangu ko wax kaw da nga am problème genou <laughs> genou bi la ah. physiquement gis na la ah. wax mu ah. da nga am problème genou genou bi yëngu nga entraînement n'est-ce pas genou bi mo la pénaliser gina le la dara amna borom dara dama la koy wax genou <laughs> depuis bamay euh, ay ñom ma wax la ko tay lamb yu mum beure yep daam dama wër keñ dama wër këj këj manam dara daluma dara metiuma, yep dama daam xawma na ba xam dégg nga li ma la ak maa la dégg maanaam wërul mhm. dama daam yi nga xamne da nga dem di sentir ni amna luy metti mu ma gañu gañu waaw da ngay dem une semaine nga mel duma duma ma duma def dara dem bëre daal damay dem beure daal yi nga xamne sentir nga ne yaangi tax maa ngi am damay ñaar Windows 10 programı